وثبت الأجر إن شاء الله أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وسلط عليكم الملائكة مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو نلي باخ باخ ndokel gaay باخ yeb tabarkallah di إن شاء الله ci programme bi nga xam ne gars yi baax yi tëraloon nañ ko ngir koor gi def ko ay thème euh, kenn ku ne jël ci benn di ci nab nabi incha allah ñun nag ñu joxoon ñu aziwaaju fil islaam aziwaaju fil islaam mooy denc soxna ci lislaam kon boobu mooy bi xam ne war nañ ko mualaja léegi incha allahu maa ngi léegi lan moo tax yàlla tëral can teg ko ci loxol góor mu yàlla daf ci bëgg wan góor ne ko dund gu yees gii nga bëgg dund dund gu yees nga bëgg a dund waneel luy dëggal ne bëgg nga cee dugg mooy izhaaru sidqi raxbati zawj fi muaasharati zawjatihi ngir mu ne ah lima may engagé wu bëgg ci dugg ñor na ma waye tamit ngir bëgg xamal goor ne ko bo yoré jigen lepp lu mu bangai ci walu financement ci sa loxo la téggu lool motax ci bis bu ñëkk ba ba ngay def déclaration di wané né dama bëgg and ak mom ñu la kay lamb sa poos ngir ñu défal stage jangal la né la and bi yégal né mu ñu ci ñak waaye tamit ngir euh, defal jigéen teraanga ay tamit ngir dimbale ko ci bis bi muy waaj ndax boo xoolee bokkut ak koddaay ndax koddaay góor gi moo koy xotti waaye jigéen lañ koy jox ngir mu di ci waaj ndax du ñàkk ay yëfam sew yoo xam ne dina ko war a def ak bis bi ñenn ci gan yeeg nangam sàngam su ko defee loolu lépp rek lislaam da cee bëgg a jàngal góor ne ko ko ànd jigéen da da mënoo koo ñàkk teral waaw te mu bañ a seer nag ndax ceen yi bu seeree mooy war a léeg-léeg bu ñëwee bu jigéen gi ñëwee daanaka lu mu wax rek waa ji mer wala nah, bu ñëwee itam tamilut na mu bëgg bu waa ji fàttali ko xaalis bu bari ba mu ca def ànd bi du mën a neex ndax bu fekkee da ngaa jël li nga am lépp def ci ba noppi mu ñëw melut ni nga bëgg lu mu wax rek tuwaarkaala nga mbëkk li tëkk la yoonu yoonaluk sëy ci sharia euh, mën nañ ko fekk ci alquran mën nañ koo fekk ci sunna waaye mën nañ koo fekk ci ijmaa muy euh, borom xam-xam bokk na ci li sharia wax fankixu ma taaba lakum min annisa na ngeen denc ñu leen neex ci jigéen ñi neex ci jigéen ñi moo xam ñaar la ñett ñeent su ko defee euh, loolu alkitaab moo ko saxal muy alquran mbokk yi azziwaaj fi lislaam muy gis-gisu lislaam ci sëy gis-gisu lislaam ci sëy sëy nag mbokk garab la goo xam ne gu bari bànqaas la bu ñu waxee sëy day doon garab goo xam ne gu bari bànqaas la ndax ñun ñëpp dañuy xam ne aziwaaju min acdami al alaqat allati akkada alayha al islaamu wa raxaba fiha wa jaalaha sunnata al mursalin denc soxna bokk na ci relation yi gën a bëgg muy dëgër relation yi am ci àdduna bi war a nekk ci diggante ñaar yu marié moom la yàlla gën a bëgg mu gën ci dëgër moo tax yàlla suñu borom soññe na bu baax a baax a baax ngir nit ñi denc soxna waaye tam def na ko mu nekk sunna sunna yonent yi yàlla def na denc soxna mu bokk ci sunna yonent yi alayhim salaatu wasalaam wa qad i'tamala al islaamu bi tafsili ahkaami ziwaaj moo tax lislaam jël na temps lool lislaam jël na temps lool ci jéem a teqantal mbiram sëy bokk na ci euh, mbir yi yàlla gën a leeral gën ji indi ay détails ci alquran waaw ndax boo xoolee ba mu wax ne sant nañ leen ko demaat bay wax ci bu problème amee demaat bay wax na nga xam ne dafa nekk relation bu sérieux faaw lislaam joxoñ ci baaram euh, wax ko bañ xam ne lii la ci namm yu bari daanaka bu ñëwee da koy junj rek dem xadi xaadis yi ñëw leeral ko wala ulama yi ñëw leeral ko waaye aziwaa ji muy sëy lislaam da cee joxe gis-gis boo xam ne li si doon wax amu naan lii la bëggoon wax wala lii la façon wax da ko wax leer ndax lislaam leral gogu lim ci djublu moy bëgg rek ngir samu relation bobu diggante borom kër ak soxnam motax andil nako ay ahkam ate, andi na ci ay adab, teggin ñ koy wara lal ba and bi mën neex ta yàgg waaye ba tay andi na ci ay huquq mi xuquuqu zawjayni lepp ngir bëgg sam relation bobu ndax relation la bo xam lépp ci lay meññee ci lay meññee waaye su fekkee li ci war a juddoo ci relation bi dafa ñëw fekk ànd bi bëri ay yëngu wala ànd bi bëri ay jafe-jafe wala daanaka li ñuy wax intihaar daanaka euh, tubaarkàlla nasax na kon lu cay juddoo bu ñëwee jafe-jafe ci lay nekk mu ngi mel ni kon diggante ñaari way dencante su fekkee dañoo taxali koo fase dafa am doom yooyu bokk nañ ci doom yi nga xam ne bu dee wàllu psychologiquement wàllam xel du ñu neexel lool seenu dund du du am stable du dal su ko defee daanaka lu bëree bëri ci seen aduna lu ñu war na mën a réaliser duñ ko mën a am ngir lan dañoo ñëw fekk seen i ñaari wajur nekkuñu normal euh, te xam ne it relation boobu l'islam da koy sàmm ngir bëgg la cay ñëw fekk ñeneen di dalal nekk di dund diine ju diine ju sell waaye fekk yi tamit mboolem majalatul xayaa mboolem wàlli àdduna yi mboolem di aju ci dund gi daal lislaam dafa bëgg lay war a juddoo ci sëy balaa ñëw fekk loolu tegu ci yoon woo xam ne yoon wu ne la waaye mbokk yi ba tey li aju ci wàllu sëy waxoon naa léegi ne sëy garab la gu bari bànqaas moo tax lislaam indil ko ay chart indil ko ay arkaan bokk na ci bànkaas yooyu soqeekoo ci garab gi ñuy wax sëy muy aqdu nikaax nan la ñuy fasee sëy lislaam ñëw na ci yaatal na ko leeral na ko baax waaye bokk na ci masala yi ay ci wàllu sëy muy as sodaq muy can cani tamit lislaam leeral na ko indi xekma bi ban philosophie moo tax lislaam tëral can ci sëy ban philosophie ak lan la ci jublu lor leral nako bok na ci masail yi muy al muharramat ñi nga xamne l'islam dafa la téré nga denc len soxna euh, ben da ngay na jege ci ak bok motax mu téré lako wala bok da ngay a xawa a ci gorowante moo tax mu téré lako wala bok da ngay a bok ak namp ndax lolu da na am ci arabiy ar-radaa Ki war nga ko mën denc waye nak ba ngeen di nek tu tànk da ngeen na bokkon ku len nampal motax tax mënatoo koo denc bokk na ci masala yi aju ci sey ab talaq parce xam ngeen ne bokk na ci buntu yi gëna jafé ci sey bokk na ci masala yi nga xam bokk na ci sey té l'islam jàngale ko moy al idda mooy bokk na ci masala sëy mooy ba al euh, arradaa namp namp itam l'islam tëral na ko wax na ci ay yëf xam na ne nuñ ko war a defee bokk na ci ba tey hadana muy yar l'islam jàngale na bu juddoo ci sëy kan moo ko war a yar ak nan lañ ko war a yaree yii yëpp ay masal la yoo xam ne lislaam ñëw na ci benn buñ ci jëloon ci ak tomb ngir bëgg koo waxtaanee mën nañ koo jël par benn benn benn moo tax sëy dafa bari ay masala mënee su ko waxtaanee ci benn jotaay ndax yii ma wax yëpp benn bu ci nekk ëpp na ay jotaay bokk na ci masala ba tey lu ñuy wax xuquuqu zawjayni waaw xuq muy muy xuquuqun euh, boo xoolee hunaaka xuquuqun ala zawj wa xuquuqun ala zawja soxna si am na ay àq ci sëy bi góor gi am na ay àq sëy bi loolu sax nag moom lañ bëgg a indi développé ko ci diggante yi ñu waxoon te yi ñu kon wax naa ne luy teg la yoonu sëy ci charia la ci jiitu mooy alquran alquran nee na wa ankixu la yaame minkum asolihina min ibadikum wa imaikum nañu denc al ayaama mooy jamoo ay mi ay mi mooy ku amul góor ku amul borom kër ci jigéen ñi wala ku amagul soxna ci góor ñi mooy ay mu ay mu mooy góor goo xam ne amagul soxna wala jigéen goo xam ne amagul borom kër yàlla nee na ñooñu nag nañ ci denc waaw nee na nañ ñépp denc bokk na ci relation yi gën a neex yàlla mooy sëy bokk na ci yi gën a naqari seytaane mooy sëy moom sëy bu amee rek yëg na lu koy métti loo xam ne kenn mënu koo xeyaas bu sañoon benn sëy du am ndax dinaa ñëw léegi ci kanam sëy ni mu baaxee ak ni mu mënee defar pinc waaw waaye am na ay xadis yoo xam ne it day tektalane ne sëy daal piir lu sharia yoonal la bokk na ci xadisu ibn mas'ud bi radiyallahu anhu mu jele ci alayhi salatu wasalaam ya ma'ashara shabab man istataa minkumul baata falyatazawwaj ndax fa innahu aaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu yuja rahul bukhari xadisu Buxaari boobu Ibnu Mas'ud dafa wax ne dafa jëlee ci alayhi salaatu wasalaam mu ne yéen ashabaab mooy yenn jeunes yi yi ndaw ñi ndax foofu it waxut yéen tu tànk yi waxut yéen njigir yi waxut yéen paa yi waaye ashabaab la wax kon ñu déggee ci ne boo nekkee xaleet bu tàmbalee ci vingt ans vingt ans ba baa ngay am vingt cinq ans heure bu ci mënee denc dencal heure boobu liñ naan heure bu baax bi jot na waaw xadis bi dafa wax ne yaa maachara shabab ma wax ne foofu nag sunu borom tabaaraka wa taala waxut ne yaa maachara shabab waaw waxut euh, euh, ñi nga xam ne euh, ñi nga xam ne danoo nekk nekk assoor waxut ashiyab nga xam ne danoo bijjaaw waxut paa yi waxut njigir yi waxutu tànk yi waaye shabaab la wax ñu déggee ci ne kon shabaab mooy ki nga xam ne moom la sharia gën a bëgg mu denc soxna mooy ko xas am vingt ans ba baa ngay am vingt cinq ans ir boobu wax naa léegi ne li léeg-léeg euh, ci mustalaha bi ñu utiliser lekk léeg wala slogan boobu naan ir bu baax bi jot na deug deug ci waxtu wo nak moy waxtu bax yi 20 ans 25 ans ku ci meuna denc soxna yegal ne moy li gën alayhi salaatu wasalaam ne ku ku ko ci meuna denc yegal ne moy li gën ci yow ndax moy tax nga meuna sam sàmm sa gët yi moy tax nga meuna sam sàmm sa pëy am ko taxaw ne ka ah, sang bi man day bëgg na way mënuma mu ne ko waaw kon nak maa ngi lay digal na nga taxo koor waaw ndax koor mën na laa dimbale ba nga mën a sàmm yooya Buxaari kon loolu mooy euh, euh, euh, lii wane ne sëy charia yoonal na ko masala mu ñaareel mooy alxikma fi mashruiyati nikaax ban philosophie moo tax charia yoonal sëy laqad charaa allahu nikaaxa li xikamin saamiya يمكن إجمالها في الآتي لتخ شرع يونال سي حكم بو ريل بو كوي بو أم صلاة تلول دنين كمان تنكرك كلي مو إعفاف الزوج إعفاف الفروج لا بقوة إعفاف الفروج كون المثل الثاني الحكمة في مشروعية النكاح لتخ يالا يونال سي بوكنا تي وحنا نبتنجك مو إعفاف الفروج ngir bëgg góor ñi takk seen tubéy ak ngir bëgg jigéen ñi takk seen seen seen sër ndax yàlla ba mu bindee nit dafa defaale ci moom loo xam ne xam na ne dina am lu muy yëg moo tax ngir bëgg loola mu teg ko ci yoon ak bañ yàq jikkoom ak bañ yàq penc mi tax mu wutal ko aw yoon bu mën a jëfandikoo loolu ba am ci teew bokk na ci li yàlla li tax yàlla yoonal sëy ba tey tam mooy ngir bëgg nit ànd ak dal ci ak dundam ak ngir bëgg am ko ko wéttale ak ngir bëgg mu noppalu ak ngir bëgg ak dundam ak dundam mën a neex jëm ca kanam waaye loolu nag daanaka buñ ko xoolee léegi day mel ni day bëgg safaanoo ndax léegi nit moom bu amul soxna la ñuy wax ne lay dund dund gu neex waaye bu commencé bu amee soxna rek dund nga commencé salfaanoo ndax yeccee ajoog yooy ndax moo tax alxuraan wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan lu tax li taskunu ilayha bokk na ci kawtif fi wane yàlla mooy yàlla mooy bind gim bind nit soxna yi nit ndax yàlla mënoon naa bind nit mu war a am soxna sa neen su bokkut ak soxna si nit ndax tey ji bu yàlla bindoon nit war a am te ji soxna su fas wala soxna su xar tey ji bu ko bëggee jox dépense du sotti motax bind gi yalla bindal nit soxna so xamne nit la yalla neena lolu bok na ci li wane ne mooy yalla itam neena na na ci li tax mu def ko ngir bëgg nit and ak dal ak ak dund mëna a neex kon nak nit su amé soxna yek ne mënta économiser wala mu yek ne lim mu doon am da xaw wañi ko wala mu yek ne mom dal bam mu amagul soxna ci la gëna ci jamm kon na xamne li jog sëy moom dundagoo waaye ngir ngir taxitam itam ba tey euh, nit ñi mën a sàmm seeni askan bokk na ci ba tey tamit ngir gàttal rek ngir nit ñi mën a sàmm seeni jikko ba du yàqu ba du suufee na xam ne ne relation yi am léegi bokk na ci yi gën a yàq jikko yi mooy euh, farantu yeeg am bëgg jëkkër am farak ay nangam nangam loolu bokk na ci li gën a yàq jikko yi léegi te luy ëpp lu ci dugal nit ki mooy wut alal wala ngir bëgg loo wala ngir bëgg lu ëpp sa tolluwaay kon eh, yàlla dafa yoonal say ngir dàq fi farantu ndax day bokk ci yàq jikko yi kon mbokk ñu njëkkee ci taarif nikaax lugatan lan mooy nikaax lan mooy nikaax luxatan an nikaaxu luxatan mooy ad damm wal jamco wa tadaaxul mooy booloo wala tàppoo wala duggante wax nañ ne sax baat mu ngi bàyyi ko ci tanaakaxal ashjaar léeg-léeg dañuy gis garab yi ñaar yu taqaloo tappaloo noonu wax nañ ne baatu sëy foofu la bàyyi ko xam ñaari garab yoo xam ne dañoo sësaloo taqaloo noonu ne nañ sëy la jógee waaye sharia ndax bu ma waxee taarif ko luxatan luxa mooy baat bi buñ ko waxee lii lay gannaaw loolu nag ci la ñenn ñu wutal ko seen istilaaxaat ñu ne euh, waa waa waa waa waa buñ ko waxee nangam lañ si jub ñu ne buñ ko waxee ci sharia nangam si jub loolu la neen la li njëkk mooy taarif ko luxatan ñu ne baat bi bu ñu ko waxee baat bi moom jëmmi baat bi lii rek lay tekki léegi na kenn ku ne nag jël ko xool noo ko utiliser yow kon waaye buñ ñu ko waxee ci charia moom nikaax muy pas-pas la boo xam ne mooy may nit ki mu daganal nangam mooy tax nit ki sañ a bànneexu ci moroomam euh, ci moroomam mi mor a àndal ci dund googu mooy góor gi wala jigéen ji bu waxee nikaax luxatan mooy mooy loo xam ne dana daganal góor mu bànneex ci jigéen ji wala jigéen ji mu may ko a ci góor gi loolu mooy la ko lii tegtale ne adillatu mashru'iyyati nikaax luy tegtale yoonu lu sëy ci charia liy tegtale yoonu lu sëy ci charia mu sàkk tënk àq yi góor ameel soxnaam daf ne déglul ma wax tey li war ci góor ñi te muy la yàlla farataal jigéen ñi gannaaw canam ga wéy na bañ dencante def mutazawwijayni bay laalante yile yenant mooy moom la yàlla teg góor ki na wasooy tënkam laaj ko aw góor bi ci njëkk mu ne koddaay la mooy farata góor day wodde ndem xam na man na gaaya duñ ko weddi nafa xatoy dundam war na képp ku yor jigéen dërëxam la mbaa muy pepp may ku yor soxna war ko jox dépense mo xam da nga yor xaliss di joxe wala nga yor njël muy yett ci la motax mo mu ne ku yor jigéen dërxam la mbaa muy pep waaw gaadi wat un war na nuy lalante ndem soob na len kat ñuy umpante sin saadi sukuna dekk hay bu yaatu war na borom keur fa bu bum faatu kon ñent yoy moy l'islam gal goor mo war ko defal soxnaam moy kina wasun moy kef nun waaw ak sin ñew na la ci Kef ga muy koday ga muy farat mu farat la ci góor ñi waaw ku ko am te man ko wala nun nga moy dépense dund ba warna kep ku yor jigen dirham la mbaa muy pep wala waaw ga muy euh, watoon moy di joxe ak ay nga xamne ne bokk na ci euh, ponk yi nga xamne mom la l'islam gëna faratal motax sansam da te bayilo ci nit ñi xel ndax euh, ben tombu la ci sey bo xamne mën na wax ne mooy déterminer sëy bi moo tax alayhi salaam nee na kenn amut sañ-sañ ci ñaari way dencante kenn soxna sa morom te jàppandoo ko nee na kenn ko def ci ñoom ñaar yëgal ne bu la sa morom baalut bis boba mën na laa dugal safara kon bu ngeen xuloo woon wala ngeen xeex ba sonn sax bu kenn ki ne morom ki dama laa soxla amul sañ-sañu bañ koo def ndax bu ko deful rek na na xam ne malaaka yi fanaanoo nañ ko rëbb te menn malaaka bu la rëbbee bo amul sens deug do meuna dugg safara ak lo meuna def ci lu bax bi ci dess moy sin si moy sukuna ku yor soxna war ko dekkal lolou na xamna ne motax seigne suñ kané yi rek a war góor ci jigen ndem xam nako su ko xamul manuko lam xam war nako kenn ku ne la nga am mom ngay duggé marché looloo fox motax seigne suñ kané ne góor gu xamul yenen ti yef yi yon firi nëb ci sen jabar yi su fekkee da ngaa yor soxna mënoo koo dëkkal mënoo koo wodd mënoo koo jox dépense mënoo koo dëkkoo yégal ne charia firni sab sëy moo tax si musaaka da ko tënk ci ñeenti yi ba itam boo xoolee yii tamit daanaka euh, ñu ñëwaat ci tafriq bi mu gën a yaatu ndax si musaaka ci ñeenti yi la ko tënk waaye euh, tasaat nañ ko ba mu gën a yaatu kon wax nañ ne bi ci njëkk mooy an nafaqa wa sukna Eh, goor bu yoree soxna war na di ko jox dépense fexe bu lekkee mu lekk bu naanee mu naan waaw kenn sasu ko nag ne ko bi sa ganaar lay lekk wala nangam lay lekk déedéet la nga am moo tax mu ne lam am su ko amee man ko su fekkee amu ko nag lam am war na ko la dépense bi ni war toll it l'islam du ñëw ne la bés bu set 2000 ngay joxe wala ñu ne la 1500 ngay joxe waaye bil maaruf kem fi sa économie toll noonu ngay joxe waaye ba dee tamit am na loo xam ne góor ñi dañ koy faral def te lislaam dàq ko lool mooy di xuloo naan ko yow li mën a defal waaw li mën a defal yow da ngaa mut jom doom waaye say bokk de lu ne def naa ko ci ñoom loolu mooy al mannu mannu lislaam dàq na ko ndax euh, sëñ Cheikh Mbacke def ma maa waxoon ne euh, góor de bu yoree jigéen bu yégee ne li muy def yàllaa tax rek dina noppalu bu xuloo woon ba ne sàjj itam te yëg ne li muy def yàllaa tax bu soxlaa dara da koy jox waaye du wax ne comme mer damay def bég naa wala mu ne mer naa du def bég naa dinaa def loolu ku koy def yégal ne la ngay def yàlla taxul maaka kon de genn góor deful ngir yàlla ndax boo meree moom kenn ñi mu la laaj sax bu ñaareel ba mooy euh, an nafaqa ala an nafaqa la zawja lu yàlla euh, jox pouvoir la mooy di dépense di jox sa soxna yéen saa dafa wax ne nit su joxee dara soxnaam su jullit joxee soxnaam dara yëgal ne lu mu ko jox ak lu mu mën a doon ak nu mën a toll taxawaayu sarax lay taxaw te xam nañ soxna sarax doole ji ndax euh, yowmal qiyaam sarax bokk na ci lii gën a jàllale nit kon ku yor soxna moo raw fuuf ku yorul soxna ak nu mën a demee ndax su fekkee soxna si loo ko defal taxawaay sarax lay def boo yore ben benn at soxna rek mën ngaa rafet njot rawatina nga bëgg ko yor lu ëpp loolu yéen saasan dafa mas a am benn waaye bu leen romb mag saxaaba yi ñu toog waa ji ànd ak cawarte lool saxaaba yi xool ko yëfi yéem leen ñu ne alayhi salatu wasalam eh, eh kii day moom cawartem gii bu ko jëmaloon ci yoonu yàlla ah kon de dina bëri tiyaaba yéen saasam neen teey leen bu leen yàkkamte de ki de fekke fekkee ko tax a ci këram mooy lum dundale ay domam, wala soxlay ay domam wala ngir bëgg taxaw ay dom moko tax genn ci kër gëd di waxu ni ak pësteef gi yëg leen ne mu ngi ci yoonu yalla bu leen japp ne yoonu yalla moy gaddu jaas rek dem ca xare ba di xex kep ku genn ngir wut lo dundale say dom, wala lo leen woddee wala lo samé sen ngor yun sansam nee na yëgal yang ci yoonu yalla képp ku génn it ngir loo terale say ñaari wayjur say ñaari wayjur dañoo doon mag nga yor leen moo xam dañ laa yónni dañoo soxla dara nga di ko wuti wala da bëgg loo leen dundalee wala bëgg loo xam ne dinañ ci suturaale seen bopp wala da ngaa bëgg loo xam ne duñ ci ñee seen morom nga jóg ngir sa ñaari wayjur yooyu yéen saa sam yëgal ne yaa ngi ci sabilillah yéen saa sam nee képp koo xam ne da jógi tamit génn sa kër dem ca tool ya wala marché ba te lii la tax a jóg mooy loo sàmmee sa ngor wala loo fajee say soxla wala loo fajee sa yitte wala loo suturaale sa bopp wala daal da ngaa génn ngir sa yitte bopp yéen sam négal ne yégal ne yaa ngi ci yoonu yàlla ba baa ngay ñëw te képp ku nekk ci yoonu yàlla nag euh, acte boo def yàlla nga lay bindal tiyaaba kon yéen sam nag gaañi bu leen yàkkamti bu leen jàpp rek ne nekk ci rajo naan xaal allahu xaal rasul wala gàddu sab jaasi wala di xuloo wala di takfir nit ñi mooy nekk yoonu yàlla déedéet yéen saa foo xam ne ab jullit dama koo ñee ndax moom lu mu def tiyaaba lu mu def rek tiyaaba mu ne nag su dafa génn ngir fëgg dënn wala ngir wane ne nii laa toll wala ngir puukareew wala nangam yéen saa ne leen ne kooku ma nga ci yoon seytaane mu waxaat moom alayhi salaatu ne wax benn saxaaba ne ko yëgal ne lépp loo xam ne dépensé nga ko te yàlla tax ba ci tip bi ngay def ci sa gémmiñu soxna yëgal ne Eh, yalla dala ci bindal tiyabo sa so takke jigen mu ñew ci sa kër nga diko jox dépense su fekkee bisu set nga jox ko 2000 wala 3000 wala 5000 wala 10000 000 yégal ne bis bu set saraxa nga 3000 wala saraxa nga 5000 wala saraxa nga 10000 lool nak bu béré yalla mën na la musal ci yu bare bare bare bu done bis bu set 1000 francs nga jox sona dépense yégal ne bis bu set saraxa nga 1000 francs te ben sarax limi fajal nit ci ay soxla kenn xamul num tollo sarax tay ji mënon na fekk nga bëgg faatu ci at mi yalla yokalat la yeneen ñaar fukki at wala yeneen ñeen fukki at nga war ka dundat sarax mën na fekk tay ji bo guiné yalla ne da nga war accident sarax boba nga saraxé yalla dogal mu fankal accident ba sarax day yok wërseuk motax tax daanaka léeg nga dégg ñaan diiw dafa nay wala dafa bon wala dafa nak déet ma ngay liggéey dé ndax sa su xé jox soxna 1000 francs wala 2000 yëgal ni bis boobu sarax na ci 2000 sallam waxat ne la yafruk muminun mumina bu kenn bañ sa morom ndax boo gisee tey lu la naqadi ëllëg mën ngaa gis lu la neex te lu la neex lii boo këppee ci la lu naqadi la rek di nga xam ne ñaari tubaarkaala dinañ mën a ànd ba tey tamit yoon sansam wax ne jigéen ni ko yàlla bindee tax mën mënta ñàkk bari ay njumte bokk na ci àq yi ba tey almabit mooy ak ay ak ay bokk na wax naa léegi ne bokk na ci lii lislaam gën a farataal ci sëy borom xam-xam yi bañ koy leeral dañ ne ñeenti fan yu jot gën jee néew way dencante yi war na noo ànd ñeenti fan yu jot gën jee néew ndax loolu ñu ngi ko nattee ci li alquran li sharia jàngale ci nit ñi ñeenti soxna la a am boo amee ñeenti soxna nag kenn ku ne bu ayee day tolloog ne ñeenti fan yu jot kenn ku ne dana am ay moo tax lislaam taqsim al mabit mu ne ñeenti fan yu jot gën jee néew war nañoo ànd ko defee euh, al adlu itam bokk na ci lislaam teg ci sëy al mooy al mooy euh, du du yemale waaye mooy jox ku ne cëram lislaam daf ne ku am ay soxna war naa maandu ci seen diggante ba tey tamit war naa jox kenn ku ne cëram waaye waxut ne war na noo war na war na leen a yemale déedéet loolu mëneesu ko te lislaam santut ko kenn yi tamit yemale cay soxna yemale say soxna lislaam santaaniwu ko yemale mënta nekk ndax tey bu ñu newoon kër gi dañuy yemale ñëpp ñu ne diw demal toggi ab ceeb mu ñëw ñu ne comme ñun ñëpp a yem léegi ñëpp ci ceeb bi la ñuy lekk du sotti ndax nu kon Cheikh Ahmadou Bamba duma mën lekk si ceeb bi euh, keneen keneen du mën a lekk si ceeb bi kon moo tax yemale lislaam santaane wu ko jox ku ne wàllam wala jox ku ne cëram moom la lislaam santaane ki mën a lekk soom bi nañ ko toggal soom bi ki mën nàmp nañ ko jox mu nàmp ki mën a lekk yàpp nañ ko jox mu saaxar mu yàpp moo tax Eh, léeg léeg ngay di ku naan yow day yemale woo yow day yaa jeng nangam fekk déedéet l'islam santaanut yemale jox ku nekk cëram ndax tey ji kii bu ndama, njool kii di ndaama nga bëgg wax ne li ma xottil li mi njool mi du solo wala nga ne li ma xottil njool ndama laay ndama li du solo moo tax kenn ku ne jox ko ab cëram loolu la l'islam santaane tabarakallah mbokk yi am na leneen loo xam l'islam bàyyi na xel bàyyiloo na ko nit ñi xel bi ci jiitu mooy waa bokk na ci ci yi ma doon lim ni, léeg-léeg da nga gis koo xam ne buy ngoro loolu nag góor ñi takk ñaar ak ñett ci lay ëppee da nga gis koo xam ne buy takk soxna léeg-léeg lu ne ñeme na koo digee xam nga am kat moom daa mën a digee moom jàpp na ne tëliwu dara l'islam ne nag lépp loo dig ci soxna ci jamono ngoro ga nang ko matal di denc soxna naan ko boo dikkee doo bokk ak waa kër ga waa kër ga kër yow dama lay wutal sa kër ak bopp nee na bu ñëwee na nga ko matal de wala nga naan ko yow boo ñëwee nga ne ko lu nag su fekkee lépp loo xam ne sartalante nga ko ak moom te muy loon loo xam ne lu dagan la nga xam ne war naa mën a nekk ndax tey ji boo ne bu fekkoon sa ñaareel daf ne bu ma ñëwee da ngay fase aaw bi loolu moom nekkul ci loxol soxna loolu ci loxol borom kër a nekk lislaam du ko nangu su dut yu mel noonu nga xam ne yow ko dig dara loo xam ne war nga koo man moo xam mel dama lay wutal sa kër bopp wala dama lay wutal mindaan wala boo ñëwee doo togg wala boo ñëwee nangam loolu nit ñi dañ koy def te loolu itam man liñ ci jublu laa xamut ndax daal euh, ñaar nag li tax ñi di ko def ci ñaar ak ñetteel léegi da ngay am soxna du ngeen déggoo wala mu dëgër bopp wala nangam léegi nag booy bëgg a fayaku nga dem takk seneen soxna ngir boo ñëwee fajee ci sa mer moo tax ngay digal te loolu daanaka jëru ko man daal jenn jigéen joo xam daal war naa jar di digal loo mënut wala mu yéem la ba ngay wax loo xam ne ëllëg di la indi ay yëf daal man jàpp naa ne wër te mën nekk waaw tabarkàlla ba tey tam su ko defee euh, loolu bokk na ci li alayhi salaatu wasalaam waxoon ne xaqu ma aw faytum bihi min ashuruti mastaxalaltum bihi l furuj buxaari ci addisam 4856 muslim ci addisam 1418 lépp lu ngeen euh, wax ca sëy ngeen def ko ay charte na ngeen ko matal ndax al a ala shurutihim waaye nag dama ñëwee yow doo fóot mu ñëw nga ne kaa ah, maa la ko waxoon kat waaye amu lu ma la jëlee fóot boo ñëwee dama lay wutal sa eh, mbindaane mu ñëw nga ne ko dama lay dëkkal kër ak jàng mu da nga koy dégg ku koy wax ñëwee doo nàngam ah naa daa dugg ci lu mënut kon loolu lenn ci li ñuy tënk la li góor yoreel soxna ñu ñëw ci li jigéen war a yoreel so yoreel borom këram misaal ko comme ni mu ko defee ci li war góor ci borom këram ñëw na ba tey li war jigéen ci borom këram mu ne ma delloo wax la ma dellu wax la fi la yàlla farataal teg ko jigéen juy sëy ba tax ko xaye laal ba tax ma dellu wax la fi la yàlla farataal teg ko jigéen juy sëy ba tax ko xaye taal mu ne wajattu fii kitaabihil mudawwana riwaayatan an malikin musawwana ne suñu sax lii muy wax nag mu ngi ko fekk ci téere bu ñuy wax mudawwana imaam Malik def ko mu ne jigéen a topp ndigalal borom këram bàyyi tereem te di ko neexal ngir ngërëm jigéen na féetewoo di sant sëriñam jigéen na féetewoo di sant sëriñam su ko joxeek su ko joxul na na su ko joxeek su ko joxul na dib sangam waaw dafa bëgg wax ne jigéen daal bu ko borom këram joxee ak bu ko joxul yépp na ko yemale na mi na na na muy sonnee ci moom di topp ndigalam bu ko joxee bu bu ko joxul tamit na toppi noonu ndigalam noonu jigéen na féetewoo muñal borom këram lum ñàkk ñàkk ñàkk bu ko laaj dërëm lum ñàkk ñàkk bum ko laaj ben kon neena na na feto di muñ kon digen na feto muñal borom kërëm lum ñàkk ñàkk bum ko laaj ben dërëm waye jigéen na tok neegam te bum koy genn ñongal peyam bu wër te bum xol kenn jigéen na tok neegam te bum koy genn ñongal peyam bu wër te bum xol kenn jigéen na wattu làmmañam mo ñëk bu muy rambaaje bu mu fenn Eh, di jëw moo jekk bu mu rambaaje bu mu fen di jëw moo jekk jigéen ju leen mënul ñu war laa génne sànni ci àll ba ci yoonu diine waree su dundal waree su laa san waree su laa wodd xaraam na duy fen nee na jigéen joo xam ne yii daal mënoo ko dëgg-dëgg waree su dundal ndax xam ngeen ne sax bokk na ci eh, fuqaay li ñuy jàngale nit bu takkee soxna te ay gorom mayuñ ko maanaam soxla na ko ay gorom xeeñ ko ko mayaguñ ko mën cee jot waree su ko jox dépense dara wuru ko ca moom kon yooyu ñu bàyyi xel fal mar'atu lati li diinin tufsidu talaaquha min waajibin yaa murshidu jigéen joo xam ne yàq diina mooy joo xam ne boo ko takkee doo yëg ne yow sa diina yokk na wala sa diina nangam na si musaaka ne kooku li ñu jàngale ci diine mooy fasaku moo gën a yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa daayiratu Saalihin Tuubaa Fall seen mbokkum taalibe visi Omar to Touba aéroport jess ñuy nuyoo di siar di ndokel di balaq tey baleaq di ñaan sëriñ moom lu Muntaxa Basiru Mbàkke na yàlla guddal fanam te wéral ram ñun dongo it nañu fi yalla yagal ñu yag top ci gannaawam di jëfé ndigalam di moy ay tëram ñu ngi siyaar mboolem bokki taalibe yi nga lañ bokal liggéey bi jiital ziar bi serigne Abdou Samad Fall ak mbollem bokki talib yi nga xamne ni ñom lañ bokal daayira Saalihin bu towa Fall gor jigen mak ndaw waaw ñun ñuy sant Sayxul khadim bu baakha baakha baax ci waxtaanu serigne mohammed Ngari Fall wi mu def ci mbiri sey muy waxtaan wo xamne ne nii ne kep ko xamne ni borom borom keur nga wala ngay soxna soko manana mënoon deglu teewlu ko de wax ju ama ama ama am solo la waxi kaddu yi deug yu leer nañ yo xam ni mom du luñ lambatu ndax waxtaan am sama mas gi ñoo xam ni dañuy lambatu li nak fam ko jëlee dafa ko lol muy wax jo xam ni tubar fa kàlla sëñ Mangari jere jef ñing la ci fasal di la ñaanal fanu guddu gudd ànd ak gu yaram ak xéewal mel ni duusi géej ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla teewlu nañ ko muy wax joo xam ne nii tey bu fekkoon kele la man mën naa ko jël ku mel ni man dem teg ko ci daara yi inspecteur yi ca rajo ba ndax am naa fa ceer su doon kele jaral na ma jël ko dem yóbbu ko ca rajo ba ñu teg ko ñëpp déglu ko ndax njariñal kese la moom daal yal na yàlla guddal sa fan sama xol dafa sedd guy ndax tewlu na ko bi ci guddi teewluwaat ko waye lepp deug la jere jef duma ci sori jërëjëf yal na yàlla faral ciat ci barke xaadimul mustafa sant nañ la bu baakha baakha baakha ba ndax li mom lambatu woko lu leer nañ nañ nañ nga wax jef waaw jere jef ngeen mak nak jere jef ndax loolu bok na leg leg ci li yak digeunte moy sa borom keur gis la nga am ak relation ko xamne ndax yéen saa dafa wax ne daganul ci jigéen euh, muy may bañ ku neexul borom këram yéen saa tam wax na ne ngir doole ji yàlla jox borom kër moo tax koor li muy foor foor bu dul koor ak farata jigéen suñu la woor te laajut ndigal borom këram suba dig ma soxlaam mu ne ko déedéet mu ne ko waa kon dama fas yéene woor tey jii boo wooroon te tàggoo sa borom kër doole ji yàlla jox borom kër tax na bu ko neexee mu ne la yàqal sa koor gi ndax dama laa soxla loolu lislaam may na ko moo tax yooyu yëpp yu mat a xam la daana fi ne ni li tax kër yi di xaw a métti mooy jigéen ñi dañ dut jàng duñ xam li leen war ci sëy moo tax daanaka dañuy doxee doxinu kuréer loolu bokk na ci li yàq kër yi adamul xuruj min albayt illa bi idni zawj mooy jigéen fu mu war a dem na tàggu borom këram ba mu jox ko bitig ji boo ci war na dem te sa borom kër yëgal ne génn nga ci lu ndigal yaa am bàkkaar fépp saa soo bëggee génn borom buntu kër gi xanaa lu dul nga ne man de léeg-léeg am na génn sa yu mënt naa ko mu waa may naa la ndigal wala nga damay damay man kat damaa bëgg di liggéey mu ne ko waa may naa la ndigal saa soo xëyte mën ngaa liggéey loolu xamees na ko waaye jékki-jékki rek dem parcelle wala jékki-jékki rek dem faas Mbaa wala nangam ne ma dem balaa ñëw loolu ku ko def yëgal ne dem nga ci lu wóor tubaarkal te yooyu ñaare li ci euh, dara di xew bari na bokk na ci xidmatu zawji li zawjiha jigéen moo war di liggéeyal borom këram waaw yustahab li zawja xidmatu zawjiha bil maaruf lu mel ni ay togg ak ak yeneen aju ci kër gee yu demee noonu moo tax euh, suñ musaaka tënk na ba tey li war góor li war jigéen ci borom këram problème yi am l'islam da koy wutal ay solution moo tax wax naa léegi ci gannaaw ne sëy bokk na ci euh, mbir yi l'islam gën a sonne gën koo leeral yalla gën ko détaillé ci biir alcorane ndax yu bare bare bu ñëw da koy junj rek waye sey daf ci taxaw wax ko bañ xamné ni lay démé ndax dafa nekk and bo xamné bu lérut li ci mëna a yàqoo kenn xamul num toll moo bu fekkee ñak déggoo dafa am islam daf né goor gi yow la tek ci sa loxo yef yi waxtaanal laay biiral su dëgëree bop wa moy waxal wax ju xawa diis andi hadith andi nangam wan ko ne ko li nga nekk du nonu bo ci faato man nga nangam su fekke dëgër na nga daldi di tongo, moy nga japp sa bop waaw su fekke beug na la dina delu ci wane ah alaaji man de ma ngi jegul nangam nangam su de nak dëgër na bop su ko defé nak nga def la ci top moy nga daldi di te boy kurfagn nak bul kurfagn ci beut ba tubaarkàll wala kurfagn fo xamne day andi leget kon lol mo bok na ci l'islam tege yefi na aisha de ngeen ba tay tam bok na ci ta'limuha wa wa wa bok na ci l'islam tek ci loxol borom keur moy mi jangal soxnam te diko lay bi diko xamal dinam lol nak su dee soxna su nango jàng laa wax waye su dee soxna so xamne mom mune su lo bam jang boko waye am jang wala ne ko kagn ngeen commencé mune ne waaw ne gum gummuural wala muy xol fe waaw lol waxu l'islam dafa wax ne su soxna su nango jang nga dimbale ko mu jang da am na soxna yo xamne kel mën ta fexe bañ jang kon moo tax alayhi salaatu wasalaam nee na góor wala lislaam nee na góor na xër ci fexe dimbale ay soxnaam bañ jaar ci yoonu lislaam bi te teeg yoon wa ca des ndax xam ngeen ne lislaam soññ na lool dégg ngeen ci wa amur ahlaka bi solaati waaye dégg ngeen ko ci qu anfusakum wa ahlikum naran. nit nag na muy wa waa këram safara du di jàpp seen loxo di xëcc wala di bamax fee wala di nangam déedéet mooy dara nit xamal yoon wi ñu war a jaar ba fii la ñuy déparé ne leen xamal ne bu ngeen doxee nangam kilomètre dangeen jot wenn yoon moytu leen ko ndax woo safara la jëm da ngeen jot waneen yoon jaar leen ci booba loolu la ñuy xam loolu la ñuy fegalee nit safara waaye du naan di xëcc sa loxoom wala nangam loolu nag su fekkee ku nangu xamal ko waaye koo xam ne boo ko bëggee xamal maanaam ayee eh, man de aw jot wala eh dama doon togg démb wala man de suba damaa war a fóot am na ñoo xam ne boo leen kaay jàng saa soo leen ko waxee rek am nañ programme waaw xaw ma ñoo koy programme xaw ma dañ koy lay waaye loolu kenn xamunuñ toll kala waaye xam ngeen ne lislaam nee na góor moom la yàlla dink mu war a sàmm mu war a sàmm soxnaam ba dee tam bokk na ci al iltizam bi suruti shawjiya ba dee tam ad difaa anha lislaam nee na ku denc soxna war nga di ko di ko défendre war nga di ko défendre di ko sàmm di ko aar léeg-léeg ñu war ko song nga taxaw ci loolu bañ a am ndax surtout suñu penc mi ni muy doxee moom léeg-léeg dañuy xëy rek song kenn bëgg ko bonal daal di xëy ni ne moom diw moom day bon moom su ko defee nag bu amul ku taxaw ci wetam dara du sotti léeg-léeg nga dégg koo xam day wax ci diram lu nak su du noonu su ko defee nag yow su fekkee daa amul ku ko taxaw ci gannaawam nag su ko defee te nit ñi moom buñ buñ ne bon nga rek dañ lay commencé bonal moo xam nga bon wala nga baax te ñoom kenn ku ne sa sa intérêt ngay xool ak saw gisin waaw léeg-léeg nga dégg ku ne diw de moo bon moom day du joxe sukar score ah waaw sukar score moom farat la wala sunna wala nga dégg ne ah moom de musuma jox koor musuma jox sukar score sama sama sama goro ba de nangam wala sama njëkkale de nga dégg caare fa taxaw fe nim mu ma men nga de du jox kenn sukor sukor ah de du sukor sukor de sama bop rong laa ko meuna jox sukor su wala luñu ñuy suñu besab bi kon yoy le rek day am ci pench mi nit day taxaw rek ne diw day bon ndax defut nangam da fek bon ak bax benen affaire la moo tax sar salaatu waxone képp koo xam ne dañ laa faat ngir da nga doon sa da nga défendre sa soxna wala sa waa kër wala sa yaay wala sa mbokk wala nangam yégal na yaa ngi aljana ndax loolu dafa bokk ci lislaam gën a waaye ba tey tamit am na beneen point bu am solo boo xam ne pénc mi danañ koy foyee te lislaam taxaw ci farataal ko téere yi bind ko yéen saa sam jàngale ko mooy ifshaa'u sirri zawjiya wala ifsa ifshaa'u sirril mabit wala ifshaa'u sirri sirril firaash mooy laa yafshi wala laa yafshi asraara zawjiya ndax a xam ngeen ne nit ñi léeg-léeg wala rawatina ci jigéen ñi dañuy waxtaanee loo xam ne sallallahu alayhi wasallam da coo diisa lool te bañ ko lool te xeex ko ndax yu saa dafa wax ne inna min charri nnaasi inda allahi manzilatan yawma alqiyama ar rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayha summa yunshiru sirraha hadis muslim 1437 nee na bokk na si ñi gën a yées wàccuwaay fa yàlla ñi nga xam ne bu ñu demee yàlla du leen xool du maslaa ak ñoom du am ci ñoom benn affaire mooy koo xam ne day ànd ak borom këram wala mu ànd ak soxnaam ba noppi di ko waxtaanee ca mbedd ma te loolu bëri na da gis koo xam ne da lay jël PV wala mu nekk ci groupe whatsapp bi wala surtout jigéen ñi di wax yoo xam ne ca biir néeg ba lay xew wala moom la ñuy séq ak seen i borom kër léeg-léeg da nga génn di dox jàpp ne yow am nga war ma wala nit ñi jox nañ la ci wala ñaa nga fekk yow fu ne yaa ngi mel ni ku summeeku ci kanam nit ñi ndax loo séq ak sa soxna rek bu génne wax ko ci mbedd mi te loolu bari na lool da ngay dégg naan wa yow an sa paa bi mu ah koko dee nangam nangam nga xam danaka daanaka loolu dañ ko woyfal ta ali sam nee na ku ko def séq ak soxna dara ba nopi génn xaw ci dara rek yëgal ne yow yalla safo ta dara safatul yalla motax li nga séq li nga séq ak sa borom kër mom nayam fofa bu ngeen ca wa salam waye génn di ko wax ak génn di nangam ak wala nga ah góor ñi de nangam rek lañ bëgg wala góor ñi de nangam yooyu lu lislaam moytuloo nit ñi te nit ñaa ngi koy def baax a baax lépp loo aju ci wàllu lool kenn waru koo waxtaanee ndax xam ngeen ne eh, téere bind nañ sax ne eh, te loolu bëri na suñ penc mi xëy na ngànt la képp koo xam ne benn néeg nga am boo amee soxna na ci yem boo mënta am beneen néeg bul amaat soxna te wax nañ ne sax boo amee doom waratoo daanaka waratoo sëyeeg sa soxna ndax wax nañ ne fépp foo xam ne ñu fay sëyee fekkee benn néeg la boy seeg soxna kenn wuro fa nek mo xam xale bu ndaw la mo xam ki nelaw la wala nangam kenn wuro fa nek loolu na xeyna ngant mo ci yegg waye su fekkon di jëfee nañ ko kon ko amati ben dom doto ànd ak sa soxna ndax faaw xale bu nek ci neba kon yoy bok na ci li sharia bàyyiloo xel ndax deg ngeen ci misbaa sarik wala yajuzul watu fi huduri shakhsin walaw fi nawmi aw sahiri saxiri daganul nit di ànd ak soxnam te kenn nek ci neba mo xam xale la moo xam kuy nelaw la moo xam ab dof la moo xam nangam la waaye boo ànd ak soxna daal kenn wëtt nekk ci néeg ba loolu nag xëy na su fekkee am nañ ci ngànt ba xam ne nit benn néeg la am loolu dañ koy may ngànt waaye ba tey bokk na ci lislaam di défendre mooy euh, bañ di dal ci kaw soxna si ndax xam ngeen ne bu problème amee am nañ li ko lislaam di traité lislaam bokk na ci li jigéen euh, li war jigéen ci borom këram mooy wujubu taa bil maaruf bi ci jiitu mooy war di topp ndigalal borom këram ndax dégg ngeen suñu tuba ba muy lim ñi nga xamne duñ dem aljana la araf lañ jëm qadu adati satan dawil dawul la araf min duli miriyat la aslaf bi ñeek moy al kafirul mu'ta'u jiddan qad yahab wal aalimul baxiilu kullahu tasab summa tamayti yuti allaha rabbana wa lam yakul walidayhi muhsana summa ta abdun ya abdu wa lam yakul li sayidin rahima bi mu moy lan fa maratun fa maratun kanat lillahi aamila waaye walam takun kalaama zawjin qaabila walam takun kalaama zawjin qaabila suñu tubaa nee na juróom-ñeent ngi jëmma ngi nii yoo xam ne dañu dem aljan ba mu koy lim boole na si jigéen joo xam ne dafa dëgër bopp ba borom kër mënu koo sant lu mu def waaw léegi-léeg nga gis jigéen joo xam ne la lay tax du jëfi ndigal borom këram mooy daf ko ñaan dara mu ne uma ko wala daf ko ne diw am na nangam kon bëgg naa ko uutal ma ko mu ne ko bu ma fontoo mu commencé lu mu ko sant mu bañ wala dama bëgg dem bërf sangam mu ne ko doo dem wala dafa bëgg jënd nangam nga ne ko uma xaalis lépp loo xam ne ba tax jigéen borom këram sant ko nangam mu bañ sëriñ tuuba nee na bu ko borom këram jéglu jéglu loola du dem aljana te lii euh, loo xam ne euh, sunu borom tabaraka wa taala moo ko jàngale sëriñ tuuba andi ko ci ba muy lim ñooñu kon nag sëriñ tuuba waxaat na ci ba muy soxna di wala tarumi taatallaahi bila taate zawji ki taqi dul ola bul topp yàlla mukk ba noppi di mooy sa ndigal borom kër di mooy sa ndigal kër ba noppi jàpp li ngay def nii baax na mukk jigéen amul lu ëpp ndigalal borom këram lu ngeen meroo meroo ak loo gis-gis loo xamut ak loo gis-gis loo naqadi loo sa borom kër sant da koy def bu dee lislaam terew ko loolu nag bëri na ci soxna yi lool te mbir la moo xam ne mat naa moytu ndax yàlla nee ar-rijal qawwamuna ala nisa lutax mune bima fadal allah yal na ma jël mbir yi teg ko ci loxol goor ndax lima ko defal ta defal mako jigen motax suñu saaka ne na top ndigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeureum jigen bi tok buy top ndigal borom kërëm wala mu diko defal dara na ca wut ngeureum waye bu mu ko def ngir ne tay contant na ci wala nangam dedet suñu musaaka ne jigéen mënul moy ju top ndigal ta bàyyi tere jigen julen mënul ñu war la genn sànni ca xàll ba ci yoonu diine jigéen ju mënta topp ndigal mënoo bàyyi tere dañ la genn sànni ca xaj si musa ma ko wax mu ne ar rajul masulun an amril mar'a wa tawjiha jigéen moo war góor moo war di orienté jigéen comme ni nga xam ne euh, yàlla nun la jagalee góor mu war a mu nekk njiit ci sëy bi kon loolu benn la mooy war gi jigéen war di topp ndigal loolu àq la ci war ci jigéen ji ngir mu war ko defal borom këram ñaareel ba mooy tamkinu zawj min al istimna wal jima mooy jigéen moom la yàlla teg ci loxom mbiram ay maanaam fu ne ni lii xaw ca lal ba loolu daf koo teg ci loxol ngir mu war koo doxal bés bu set jigéen moo war di laaj borom këram ndax tey noppi nga ndax tey nangam dañuy wax sax ne euh, léegi léegi dégg jigéen man rek ci xale pare te boo ko gisee fekk na dara waaw xale rek ci pare te boo gisee fekk dara parewu ko te charia nee na lool it buy xew dina doon loo xam ne lu ñuy waajal la euh, def yee ci aju la lii lépp lu charia jàngal ndax day wane rek ne charia bàyyiwu dara dara lépp loo xam ne aju na ci dund gi charia ñëw na ci moo xam ñu xam ko wala ñu bañ koo xam waaye charia ñëw na ci lépp moo tax mu ne wa isam tanaati az zawjatu min ijabati zawjiha waqaat fil mahzur war takabat kabair bok na ci bakar yi mak yi nga xamne tuub rek mo meuna tax yalla jéggale ko moy borom kër wo soxna mu baye ñew ñëw bok na ci bakar yi gëna mak l'islam nak kenn ñi mo ko dural motax luñ ci wax ñepp dañuy xamne ci wax suñu borom tabaraku taala motax mu ngi ni hadith bok ko moy kal hayd bu da nga am ngant li rek mo meuna tax sharia may la ngant sa borom kër wo la nga bañ moy da nga am direct wala da ngaa nekk ci kooruk farata wala da tawat tawat joo xam ne ku ne xam ne ne am nga ngànt wala yu demee noonu moo tax yun salaa salaam wax ne te moom dafa wax ne ku ko wax lu mu waxut yaa nga safara mu ne bis bu borom kër woowee soxnaam ci lal bi mu bañ yëgal ne ne mu ngi fanaanoo merum yàlla te merum yàlla nag moom lenn lu ko gën a rëy ci fii ak fa la jëm amul te dina yëg ne fa baata xadbaana alayha laanataha al malaykatu xataa asba malaaka yi dañuy fanaan di rek bu bët set kon moo tax loolu Buxaari indi na ko ci trois mille soixante cinq muslim indi na ko ci mille quatre cent trente six seen xadis yi peut être bokk na ci ñàkk may bañ ku neexul sa borom kër jigéen ku neexul borom kër waru koo may bañ waaye ba tey tamit euh, ñaareel ba mooy al ashra al xasana ashra al xasana bu ñu ko waxee mooy jikko jafet bokk na ci àq yi borom kër yoreel soxnaam Moy ñu anda and bu rafet ànd nak rafet nag buñ ko waxee moy yërëme da dugu, dugg wax ji noy da fay dugg waye batay tamit nangu ay njumte da cey dugg wa ashiruhunna bil ma'ruf comme ni ko alquran waxee yalla neen leele ngeen and ak nit bam yag gisti ngeen gis ci mom jikko yu leen neexut waye yalla neena bu mu tax ngeen jàpp ci loola bo bëgg baye ndax léegi saa so gisee ci nit lu leen neexut yegal ni da nga gis ci mom lu neex waaw kenn ku ku sa lépp bon amut kenn ku ne da am lu baax am safaan loolu tubaarkàlla yéen saa sam nee na ñi gën a seen ngëm gën a mat mooy ñi gën a rafet jikko te ëpp ak yërmande ci seen waa kër alayhi salaatu salaam nee na inna akmalal mu'miniina imaanan ahsanuhum xuluqan wa altafuhum bi ahlihi rawaahu tirmisi benn saxaaba dafa laaj alayhi salaatu salaam ne ko yaa rasulallah lan mooy aqu kenn ci ñun ci soxnaam mu ne ko mooy soo soo lekkee na lekk ida ida ida eh, an tutimaha ida taamta waaw moom mooy soo soo sexee na sex xëy na sex nag moom yéen koy tànn waaye daal boo sexee daal na seex yun sansam nee na loolu àq la ci soxna si bu ko góor gi réew waaye ba tey tamit soo soloo na solo soo soloo na solo wa tak suha isak sayta boo soloo na solo waaye koo xam ne da ngay xotti rek foo toll dóor ay bassin di dóor ay jasneer te soxna du solo mukk loolu ani salaatu salaam nee na bokkut ak ànd bu rafet waaye ba tey tamit wala wala bul doo toll naan ko yaa bonde booy mer yi tamit insaan sam nee na na mer ma yem ci néeg ba loolu nag moom ñi ko man ci góor ñi bëriwul ok boo xuloo moom day génn ba ci biti rawa abu daawuda moo xaadu alayhi salaatu salaam ne xayrukum xayrukum li ahlihi ki gën ci yeen teman ki gën ci wa këram té man ma gën ci sama wa kër kon ma leen gën ku ci top top ca waaw kenn ku ne sag mbax ci sa wa kër fam toll yent bi neena na mbax ci pénc mi sag mbax ci yalla fofu la toll ba tay tam bok na ci yi euh, borom kër yorel soxnam moy euh, maslah ak di jéggalé waaye na xam ngeen ne Euh, njumte du mën a ñàkk te suñ musaaka dafa wax ne jigéen mënee su ko jubbanti ba jub ñu ne ah mu ne dëngee cosaanam loo ko waar waari du jub jigéen mënee su ko jubbanti ba jub ñu lu tax mu ne dëngee cosaanam ndax yàlla da koo bind ci ndëng comme yàlla da ko bind ci ndëng nag jub du ko yom yoon saa sax dafa waxoon ne bu ngeen leen bëggee jubbanti da ngeen leen di damm ñu ne ko luy damm gi mu ne da leen di fase waaw ku bëgg jigéen ku bëgg jigéen ju mucc ayib do tak soxna ndax amul ngeen nga Demon ci àll ba bëgg japp ak golo rek bëgg go xamne ne bët ba du wala bëgg bo xamne ne do du dar wala nangam do ko am ndax amul motax jigen mu ne su ko jubanti bam mu jub da ngay ci sanam loko war war du jub kon euh, ali sar sam neena al mudarat wa tahammul fala budda ñu jëfé ko waye bokk na ci yoytu moo tan sawul fadala baynakum bokk na ci mudara alaj ibu bi firi bat bobu da koy firi firin wu am solo wala tan sawul fadala baynakum neena bu len fatte tra ngay ngoro ji doxon ci sen digeunte waaw tay ji nit day jog dem seti keur sangam bu demé fekk ñu japp ci xariya wala japp ci ya, wala nangam waaw defar bam baax <laughs> mu ngok eh, xamna naa ñu ngoro ñepp xam nañ ko nga dem ci kër ga fekk yaa aji jàpp ganaar yu bari defar ba mu baax <laughs> nga ñëw mu lal yëf ya teg te yow yëgagoo dara yow yaa ngi xool gisagoo waaw lal yëf ya teg ne ndaw si toogal fee ci pegg ba di ko daggal nga ne ah léegi nag teraanga yooyu bokk na ci yi nga xam ne mën naa xëcc nit ba mu ne ah li may wër kat mën naa nekk fii ndax comme ki yaree nañ ko ci nangam ne yu baax yooyu xewoon seen diggante bu ngeen koy xalaat dina tax seen am ànd dina mën a rafet waaw tubarkàlla